mooy euh, am na ñaari commission yu ñu war a teg ñu jàpp date bi comme ni ko nit ñi waxe mu gën a gaaw ñoo ñu xool nan moo war a gën a gaaw pour ñu jàpp dat proposé ko président mu jox ko conseil constitutionnel ñu dem ci ay élection ci jàmm beneen bi mooy li may xaar si dialogue bi mooy Sénégal bu am jàmm Sénégal bu am dal jeunesse bi ñëw ci ëpp lu ñuy ñàkk seen bakkan man juróom-ñaari doom yu góor la ma yàlla may bu na amee dama leen di tëj sama biir kër ay innocent rek ñooy ñàkk seen i bakkan kenn du leen jaale man dama leen di politique ñeneen di leen politique et c'est dangereux mosoo dégg ñu ne du doomu honorable ba Diallo ñu ngi koy jaale doomu ministre nangam ña ngi koy jaale parce que kenn ku ci nekk yaa ngi tëj sa ay doom est-ce que ñun suñu ay doom ñoo war a gën yeneen i doom je dis non est-ce que ñoom seeni i jabar ñoo war a gën suñu ay jabar je dis non il faudrait que ñun ñu bàyyi di manipuler la jeunesse parce que man jeexal naa jeex na xale yi ñoo ci des il faudrait que ñu am ay valeur yu bees valeur pardon euh, liggéey joxante loxo xam ne dañuy dem bàyyi fi jeunesse est-ce que lii ñuy wan jeunesse bi euh, dina nekk loo xam ne loolu l'avenir de euh, ëllëgu Sénégal dina ci am jàmm moi demande à ce ci dialogue bi li ma ciy xaar mooy jàmm am ci réew mi dal am ci réew mi président Macky Sall wax na ko kuy xaar dat di xaar dat di xaar dat ku fi nekk ay at ñetti weer yokkul dara ci président Macky Sall yokku ko dara. non image non demba donc may ñaan demba euh, non mandat président bu jeexee jeex na. non déggoo li ma la wax yokkal ñetti weer. wàññiwu ko dara yokkalu ko dara parce que xam nga lu tax ma indi loolu. quand président Macky Sall moo njëkk wax mu ne leen. man sonn naa damay dem non. président Macky Sall moo njëkk ne damay dem dama sonn président Macky Sall moo ne ma président Macky Sall fan la waxee dama sonn. mais démb nee na leen man euh, doyal naa sëkk sëkk sëkk wax ko wax na ko démb. non dama sonn bi kay moom a. non non non non ku ne doyal naa sëkk mooy da nga sonn. non dafa matal. dafa moom nee na matal na boobu ba pare mu ne doyal naa ci sëkk wax na ko démb doyal na doyal na ci sëkk. mais bul ko sonn loo nag président Macky Sall. non dafa sonn man xam naa ne dafa sonn euh, man xam naa ne dafa sonn. président ku sonn la président assemblée nationale ñaar ñu ñu sonn la ñu actuellement ci réew mi dañ ko waxul rek dañuy demee ki mais ñu sonn lañu parce que xam naa ci dara. président assemblée nationale lan xam dara xëy na lu. Euh, lan moo ko sonn temps bi dafa gàtt. lu dul euh, euh, honorable déedéet euh, du noonu de la parole. Ah, loolu ah, du loolu de loolu gën a tuuti sa perchoir toog ah, loolu. ci gën a tuuti. parce que xanaa xamoo no conseiller président assemblée non non non non xam nga luy sonn bopp bopp day sonn gis nga bu bopp sonnee rek feeñ ci cër yi. bu sonnee bi ci donc li ma ciy xaar mhm. moom mooy ñu am Sénégal lu jàmm d'accord Sénégal lu dal mhm. ñu bañ a sacrifier la jeunesse parce que opposition bi diit euh, nekk ak président 12 ans bokk ak moom la bilan matériel que immatériel tey dem ci ci opposition ñu di leen traité ay saint ñuy génn ay nit pour xale yi dem wala ñuy euh, nërmel comme comme réew mi ñoom c'est des irresponsables de cette république